nga xam ne ñaari làmb yi mu tëgg yëpp kenn gisuma diggante Forza ak Pakala kenn gisuma ca làmb ja diggante Bombardier ak Balla kenn gisuma ca làmb ja te 30 yi mu def ci làmb maa yor micro central 30 ans yëpp euh, niki na man ngaa moom sa bopp mais mënoo moom say bokk joo xam ne du jóg fii sama kër muy alaaji papa jën parce que alaaji Lamine Thiam dogo bëgg na ko mu ne ko duma dem du ma wax ak Gaston euh, Ndeye Fatou njaay bëgg na ko mu ne ko du ma wax du ma wax ak Gaston Thierno njaay kenn ku ci nekk dox nga ko mais ki ko dox ba mu sotti mooy alaaji papa jën di tax nag euh, Gaston toog mooy alaaji Papa day kenn ci man gason nag nekk nit koo xam ne ci man lu euh, ma koy waxe toujours rek lu baax lu ne defal na ma ko lu baax lu ne dox na sama diggante ak moom mais xam na moom na ñoxo bàyyi mii nekk na nit koo xam ne moom itam jiga déguma ko parce que ki nga àndal trente ans boo yokkoo xam nga boo wàññi koo xam nga yàlla def na nag Papa Dieng toogloo nañu waxtaan ak ñun ñu waxtaan euh, mais la ma ci gën a intéressé mooy doomam makan parce que makkan yaayam dafa baax parce que nday marem euh, daanaka euh, li ma jàppante garçon yëpp neexu ko parce que xam na ni ma mel ci garçon xam na ni garçon mel ci man moo tax eh, ji nga boo dee ànd ànd la jigéen ji baax te nday maram yaayu makan moom dafa baax eh, parce que nit ki dina ànd ak nit ba ñu eh, jabaram naan ko waaye kii dalal lakkal wala kii nangam nangam bàyyi ko mais toujours dafay topp garçon rek koo mas xulool ñoo ko bàyyi mii ma ci gën a metti parce que dama xam ñoo ko bàyyi ni mu mel ci yow euh, yàlla muy def lu baax nag def na lu baax sama diggante moom mu waxtaan euh, mu biir ma biir yàlla ne lam mu wax ba ñu jàppante dootuma ko wax ci àdduna parce que man géwél laa du ma communicateur traditionnel dañ naan communicateur traditionnel man du ma communicateur traditionnel man géwél laa xam nga luy géwél géwél ci nekk boo ñibbee yóbbaale ko boo demee jëfe ko gis résultat moo tax mu sommes les héritiers de nos ancêtres les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront kon man géewal laa du ma géewal boo xam ne ku ñàkk fayda laa wala ku doyadi wala ku yambar laa doon déedéet juddoo ci mm, mm, kol gi soog a ñëw fii man Medina gii laa juddoo Boy Town laa fii laa jàng école fii laa nekk maître tailleur fii laa nekk tambour major mais euh, bi ñu demee nag ba àdduna toll fii dara du ma tax a jaay sama dignité ak sama personnalité ndax laa dignité augmente la valeur d'une personne yàlla daal def na jàmm suñu diggante man ak moom euh, amaat nañu jàmm. comme ni nga ko waxee sax nga baal ma dam naruma woon dugg ci sujet boobee ndax mën naa ne combat ba ba mu xewee gisuñu la fa ñu bare la doon woo te bés boobu man ak yow euh, communiqué woon nañu mais nag euh, ci comme ni nga ko waxee rek euh, cër bi nga jox doomu aadama bi ba tax na ba mu la taajee taaj galson suul wax ja bëggatoo ci woon waxaat ba tey jii nga daal di ciy ñëwaat nettali histoire nag histoire lay lay indi mm-hmm. mais yow ak Gaston ni ngeen yàggee lan moo war a mën a dox seen diggante ba lii yëpp di am. ndeysaan seytaane rek xam nga euh, dafa am doomu aadama yi du ñu bàyyi weer ci benn pan te bu ma gisee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon am na kuy nas naan ah xaaral ma dem seetaan bi ba xam euh, nan laay def pour mu tàggoog père ñoxo parce que li muy li muy bëgg mooy li nga li ngay wut si ba am ko moom lay bëgg pour dégager la pour am ko te doomu aadama yi nañu. daal ay nit a nekkoon ci suuf di gor di gor say tànk. voilà nañu wóolu yàlla quoi man du ma géwél boo xam ne dama koy wax sama waa kër xam nañ ko du ma géwél boo xam ne damay reer ba rek farankulaay ci benn mu géer di ko fanal muy ree du ma ko def de je porte ma dignité ji euh, nga fi ñu def arène nationale bi 1834 la fa Matar ci la xarit Diop Ngone Mbengue yaay jàll Serigne Ndakaaru fa la daanu. Mamadou Farimata maami Ngagne Diagne borom di mag gileem ga foofu la daanu mais géwél yëpp sama maam rek fa daanu Mama Ndiaye Penda jooju parce que dafa àndoon ak ñoom ba mu ànd ak ñoom ba uh, Matar Siré Xari Joob daanu dafa ne sama maam dama ca dem ne leen daan maa mu ne ko man boo liggéey say doom ak say sët am way sama doom samay sët du ñu am way yow foo jëm yóbbu ma boo waree waral ma loo am jox ma ko may dem di annonce sa daanu ñu dóor ko ba bopp mu daanu ci noonu la mag ñi daan ànde mag ñi dañ daan fu géer gu baax ma sa daanu géer bu baax ànd na ak moom daanu foofu géwél da daan ànd ak géeram dem géer ga maye la muy maye ba mu jeex la ñu may géwél ba géwél ba buux ko géer gi mu maye ko ba mu jeex ñu ànd ñi bi loxoy nen loolu gisate nga ko léegi géwél boo joxatu léegi dootoo ko gis parce que ay ay ay chercheur lépp ñoo fi nekk mais géwél day diñ géer ñi gënuñ ñu nekk géer juddu bi nekk géwél waaye bu mu la jaral mukk nga nga nga jaay sa ngor wala nga jaay sa personalité Gaston li may nekk nekk géwél muy nekk nekk géer xam na kan mooy ñox man xam naa kan mooy Gaston parce que du moom rek moo nekk sama sama nit mais dama am ay nit États-Unis fu ne bu coow loolu jibee kun mais am na doomu aadama yoo xam ne boo demee làmb ja yow ma leen man je porte ma ah. moom nit a ko dox mu ñëw jéggalu wala nit ko dalee naa taaj waxtaan ak yéen. dañu teg mooy Alaaji Papa Dieng bu Sud FM moo ñu teg ñun ñaar ku ci nekk mu wax la li nga xam ne tey moo war sa diggante ak sa morom te jëmee gas fa noonu ko ji xat-xat bi rek moo bari mais amul benn problème ndeysaan du ma dem sax ba mën ma am kersa. parce que sa gi mooy yaakaar naa ne bu mu ci santee ñun ñaar kurpañ yi day tàkk mais. waaw ah, kurpañ ëpp naa de papa. commencé reetaan mu ah, ne tey kii tey il est waaw makan nag maa ngi koy ñaanal yàlla makan maa ngi koy ñaanal yàlla fii papam lii papam def ci làmb ak lii fii papam yóbbu làmb mu yóbbu làmb fu ko raw ku bañ ku iñaanee sa danoo sa day ñaaw. waaw ñun ñëpp fekk ñu fi suñu bàyyi defal ñu dara mais tey ñu ngi wutal suñuy doom dara pour bu ëllëgee ñu mën a jàpp ci dara kon yàlla na la yàlla defal jàmm may la wér may ko sa caméraman bi. waaye géwél ak géer leen boole dafa yàgg. donc li leen tàqalu du yomb ndax li li olof ngaa naan li ko bëgg tax ko. barke Seydina mo géer gu baax ñemee dugg kër géer di doxaan géer mos a ñemee dugg kër géwél di doxaan mais boo gisee lépp jaxasoo léegi mag ña dañ koo defoon pour kenn ku ci ne la nekk gënal leen la sa morom nekk mais bu jaxasoo amee rek xas sa jeex bu jaxasoo amee xas sa jeex ah moo tax maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla may la wér defal la jàmm di wax daal ne incha allah. Euh, lamb yi ñu ñu jëm lamb yëpp lamb yu mag la li may ñaan daal mooy supporters yi nañu fexey ba supporter seen mbër bañ a def benn boucan wala benn manifestation boo xam ne dina war a mën a yàq lamb yi parce que lamb buur ba doole du ko yàq de muy lig ni muy euh, euh, waa muy Gaston kenn ku ci nekk léegi boo dee tëgg làmb muy Pape Abdou Fall maa ngi koy maa koy euh, euh, nuyu moom itam di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm parce que toujours damay dégg parce que ñun ñooy dallu ndakaaru fu ne la dugg fu nit jaar wax rek nit jaar na fa dégg ba nettali ko koñ ko wax moo tax maa ngi sant promoteur yëpp di gërëm promoteur yëpp di ñaanal waa làmb yëpp di wax ne daal ku seetaan li dal na ma ñaanal yàlla bàyyi ma fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg loolu rek laay ñaan parce que euh, li li ma mébét yi làmb sax defaguma ko parce que li ma mébét ci làmb mooy làmb nekk ay milliards tey am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir bàmmeel boo dee ne woon tey mbër faye ku nekk un million ñu ne loolu mu sàmm parce que keroog ba mbay gi jëkkee laaj un million ne nañ ma jox mu ñëw El Hadj Ablaye Naar commenté na euh, euh, def na ci commentaire trois mois millions mi tia bi léegi dem nañu ay centaine de millions kon sama mébét mooy nañu dem ba yóbbu làmba ci ay milliards yàlla defal leen jàmm may leen wér mais si suis très content parce que mooy li ma la wax rek góor góor leen bu baax a baax a baax parce que da ngeen a dajeeg jamono joo xam ne léegi jom puso bu réer la xale daf koy for mag daf koy for góor daf koy for jigéen daf koy for jigéen ji préparer boppam nag ba man boppam am jëkkër ji ko neex mais boo yorul dara defoo dara am jëkkër joo xam ne ay mbëkk ki kurpañ rek la lay dóor yal na leen yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi ni la ko ñaanal jërë ngeen jëf mbokk